Il faut qu'on soit un peu sérieux. Le ministre de l'Intérieur a parlé d'un scrutin transparent. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord alors sur ce point Le ministre de l'Intérieur est très mal placé aujourd'hui pour s'ériger en donneur de leçons de morale. Le ministre de l'Intérieur, vous l'avez tous entendu ici dire clairement ce qu'il compte faire pour faire gagner son candidat. C'est clair et net. je ne pense pas que je reviendrai sur les propos de Macky Sall, alors opposant, qui remettait en cause euh, la neutralité du ministre de Donc il faut qu'on il faut qu'on apprenne à se respecter, qu'on soit un peu plus sérieux. Que les Sénégalais et les Sénégalaises qui ont par devers eux des cartes d'électeurs au verso desquelles il est bien mentionné leur centre de vote et leur bureau de vote, qu'ils exigent de voter. quitte à ce que le vote soit, soit, soit, soit arrêté, jusqu'à ce que l'autorité administrative mette de l'ordre et que les uns et les autres reviennent à la raison. Il ne revient pas à des individus, au prétexte qu'ils appartiennent à la Sénat, à la SEDA ou à la sous-préfecture, qu'ils se mettent à dire à des Sénégalais et à des Sénégalaises qui ne figurent pas sur le fichier. Cela n'est pas de leur ressort et cela n'est autorisé à aucune autorité par aucune loi ou aucun ci wolof nga tënkal ñu ko dellu si euh, ci yenn irrégularité yi ñu ngi njëkk sant yàlla parce que campagne nañ fi biir Ndakaaru wax dëgg yàlla campagne bu bu bu ñu jot am ci jàmm ak salaam di ñëwaat tey di dolliwaat santaat yàlla parce que tey voté nañu tamit ci jàmm ak salaam te ñu ngi ñaan yàlla fépp Sénégalais mën a nekk Sénégal ak bitim réew na ko yàlla may jàmm ndax mu mën a tamit euh, voter mën a ñibbi këram te ñu ngi ñaan tamit yàlla yàlla na yàlla def lu gën ci Sénégal wante nañuy ñaawlu bu baax a baax a baax lu ñuy dégg ci rajo yi ak euh, lu mbokk yi di di ñu wax mooy daanaka dafa am ay sénégalais ñu nekk fii tey Sénégal bëgg a dem wote yor seen carte di dem fu leen euh, seen carte d'électeur wax mooy seen centre de vote ak seen bureau de vote suñ fa eggee ñu ne leen ñoom ñu fa vote parce que seen tur nekkul ci fichier bi dama ne ñooñu ñoo nar am seen fulla bopp ak seen fayda bopp taxaw exiger ñu voter parce que amul kenn Sénégal ku nga xam ne ni mën nga taxaw rek joxe sa xalaat euh, te sa xalaat ak lu loi électorale wax bokkul loi électorale lu mu wax nee na képp ku nga xam ne ni yor nga sa carte d'électeur ñu wax la fan la sa centre de vote nekk ak fan la sa bureau de vote nekk loi électorale nee na dañ jàpp ne ni yow électeur nga kon noor nga am sañ-sañ dem nga voté kon nag amul benn mbindeef moo xam kuy bàyyeeku ci Sénat wala ci SEDA wala ci parti politique wala fu mu munti doon mu mën taxaw ne kii nowul voté parce que nekkul ci fichier dama ne 52 milliards la administration bi jël ci askanu Sénégal ne ñoom dañuy organiser ay élections dem sax ba ne dañuy def ay cartes biométriques kon ñoom tey mënuñu tey ñëwaat tey ci askan wi bëgg gëmloo askan wi que dina am ñuy wote ak ñeneen ñu dul wote balaa may dee nag ñu ñuy bëgg a gëmloo ni que dafa am ay kàngam yu bokk APR doon ay ay ay kilifa ci seen gox ñu nekk ñooñu fi euh, nekkuñu ci fichier bi kon ñoom nangu nañu nekkuñu ci fiche bi kon dañuy ñibbi seen kër dama ne loolu ay cinéma la ay caaxaan la du am ba am. mooy dañu nekk ci ay tànk sàcc élection tànk sàcc élection yu ñu nekk nag dama bëgg ñu dégg ñu bu baax a baax kenn du ko fi nangu ay waxu ay police ay gendarmerie dama ne ñun duñu ay ragal ay citoyen lañu te dañu xam suñu ay droit te am na lu ngeen xam ni kenn du ko fi nangu waaw yéen ñëpp pendant campagne bi yéen ñëpp gis ngeen fii ci réseaux sociaux yi di gis ay vidéo di gis ay ñit nekk seen biir néeg yor ay carte électeur yu dul jeex di ko fooye yéen ñëpp gis ngeen fii ay ñit def ay vidéo di wane xaalis bu ñu leen jox pour jënd seen ay conscience jënd seen ay vote te loolu yëpp loi électorale daf ko tere daanaka gis ngeen yéen ci campagne bi ñuy yëpp nit ñi ci ay oto leen jox ay xaalis nit ñi ñëw tàccu Macky Sall ak yeneen ak yeneen ñu mel noonu donc ñooñu ci ay tànku sàcc élection la ñu nekk tànk sàcc élection yu ñu nekk noonu nag dañuy ñaax surtout préfet yi ak sous préfet yi nañu xoolaat seen taxawaay am na lu ngeen xam ne ni kenn du ko fi nangu ma bëgg nag tamit lancer un appel au haut commandement de la gendarmerie nationale à la direction de la police nationale à l'état-major que ñu xam ne ni que ñun ay citoyens lañu am na lu ngeen xam ne ni duñ ko fi nangu du ñu taal Sénégal du ñu yàq Sénégal wante tamit du ñu nangu Sénégal kenn du fi taxaw ne day sàcc élection duñ ko fi nangu. ne ko yi teg ci yoon te ñaan yàlla tamit su ñu waxee 6 heures. bureau de vote yi tëj nañ leen yàlla na yàlla def lu gën ci Sénégal ku yàlla may ndam ñu xam ne ne yàlla may na ndam wante lii ay waxu ay ñii dañuy wote ñee duñuy wote ay nekk fii di kekkantu ñu nii loolu kenn du ko fi nag moo bëggoon nag ñaax Sénégalais yi nañu xoolaat seen taxawaay parce que mbéjum kanam nag ba a koy fajal boppam. am na quelques yu fi ñëw ñu ne amuñu nekk ci seen ñoo suñu amee carte électeur nañu woo préfet préfet bi ngi fii nañu wane seen carte électeur préfet na def lii di liggéeyam préfet su ko leen liggéey liggéeyam mais na ñi ñi forcé bureau de vote yi da ngay voté ñu voté ñu ne ko sama ana sa bureau dafa législative bi rek voté nañu dañuy voté keneen kii appel la dame ana sa bureau képp ku voté kay xam ko da nga ko